moom moo tax tey jii nii bësam mënu ma ko raté mais en même temps tamit j'ai de très bon rapport avec Ngaaka parce que Ngaaka sama xarit la pour te dire même ah Ndiaye ni ñu gisee relation bi ak Toch masa maa ko mettre en rapport avec Toch ba ñu xamante parce que Toch moo ñëw ne ma dama mës a faa Ngaaka gis naa ne xamante ngeen ma mettre leen en rapport donc du Ngaaka sama xarit la moom sa laa njëkk xam je pense que Fatel après ma xamante ak Fatel Fatel gën a proche parce sama actrice la donc tey bés bi dama si kontaan trop. mu nekk lu am bi waaye je lui conseille mu mu topp tànk yi nga xamante ne si la ko parents teg parce que Fatel nekk na jigéen boo xamante ne vraiment dañ ko yar elle est très bien éduquée Fatel nekk na koo xamante ne dafay julli waxtu waxtu du ko raw. même su ñëwee tournage su heure julli jotee day bàyyi lépp dem jàpp dem julli donc man loolu laa ko xamal xamaluma ko dara lu ñaaw donc je me mi ngi si ay tànk yu baax yaru na Ngaaka tamit nekk na un gars très bien franchement donc dañ leen di ñaanal rek yàlla musal leen si cat quoi parce que xam nga rek mariage célébrité moom cat daf si gaaw quoi. dégg ma ah waaw ñaanal ma rek ñaanal ma loolu waaw ah ñaanal ma ko rek bëgg waaw. ñaanal ma ko waaw. ok Pod ok boo doon ñaax ki nga xamante ne moom moo di Ngaaka Blindé lan nga koy wax pour mu mën a téye ki nga xamante ne moom moo di Fatel parce que ñaari sëyu xale lañu te ñu ngi dugg ci phase boo xamante dafa metti surtout ñu nekk li nga xamante ne moom moo di célébrité te gis nañ divorce yi ni mu baree ci kii ban message nga leen di waaw lu ñu leen rek mooy juste que Euh, ñu ñu ñu parce que tey euh, Ngaaka je pense que c'est quelqu'un de très posé ñëpp xam nañu il est très intelligent et Fatel nekk na jigéen moo xamante ne am na yar voilà quoi donc tey nañ leen ñaanal yàlla yàlla la fa leen cat incha allah seen seen seen seen seen yàlla barkeel ko rek moi je pense que loolu la ah. et puis bon yàlla musal leen surtout si cat ak làmmiñ quoi. voilà mel ne célébrité yi bu ñu nekkee ci mariage dañuy étaler seen vie privée est ce que loolu tamit bokkul ci li nga xamante moom moo di causer di divorce yi. waaye je pense pas que du dañ koy étaler quoi mais je pense que tey c' est qui s' à leur vie donc loolu c' normal parce que ku mel ni Ngaaka du ñàkk que nit ñi s'intéresse parce que tey yaakaar naa ne su keneen doon marié peut-être su su nekk woon ngaaka su nekkul woon tamit ak euh, Fatel je pense que yéen ñëpp du fi ñëw donc euh, ça intéresse les gens et c'est le showbiz quoi c'est normal ok jërëjëf. Mor nee naa la dama fay fekk nga xamante ne moom moo di Toch xale bi nga xamante ne moom moo lëmbee série Virginie chéri kat yi <laughs> mais nag bi mu déclaré amuram kat yi dafa am déception tos nuyu naa la ziar la ci loo nekk. waaw ñu lay ziar di la fay di kontaan bu baax a baax tamit. ok tas euh, euh, sa teewaay ci fii euh, duñ wax sax lan nga fi wut parce que série Virginie mën naa ne moom mooy seen deuxième famille kon donc lan ngay wax Fatel ak ban yëg-yëg nga am bi nga ñëwee fekk nit yi ñëpp ñëwal ko ci bés bi nga xamante ne moom la am muy bésu mbégte. kontaan naa kontaan naa parce que borom lay tollool waaw ku xam bis bi gis bis bi ni xam ni tamit Fatel kon am na nu mu toll ci réew mi waaw mu suñu collègue de travail ñu weesu tamit lien de collègue de travail mu dem ba nekk suñu xarit ñuy xewle muy teew moom tamit bu xewle c'est normal ñu teew quoi dañ ci kontaan bu baax parce que boo xoolee fii biti ni mel xale yi ñëpp génn nga xam ni Fatel am na liaison bu nice ak waa koñam waaw ñu ko ciy ñaaxaan mu gën leen jàpp waa koñam bëgg nañ ko lool ok yow mi nga xam ne fréquenté nga ko lan yan nga gis ci Fatel euh, ba mu waral la nga bàyyi sa yitte ñëw fi Fatel nit ku baax. wallaahi nit ku baax nit ku ñàkk ñaan. comme ni ko gars yi di woowee ci internet bi rek. mi sourire. foo ko gis day reetaan foo kaf reetaan man nëbbu ma daraam man tamit nëbbu ma ko sama daraam man ak moom on est proche nit ku baax la nit koo xamante ne elle façon voilà bëgg li muy def tamit jigéen ju mën góor jàmbaare xam valeur am xam valeur looloo ko mën a may lii mu am tey. yan kàddu nga leen di dénk moom ak Ngaaka parce mariage célébrité yombul parce que jour ko jëfee nit ñu leen di bindal di n'importe quoi donc yan kàddu nga leen di dénk a ñaax pour moom xanaa ñaanal leen ah ñaana leen yàlla musal leen ci seytaane ak làmmiñ bu bon ñu bañ a déglu kenn ñoom ñaar ñoo bëggante seen bëggante ba marié wu ñun bi ñuy marié wu ñun ci lañ koy doog a yëg kon ñoom ñaar lañ doon dund noonu ba yegg si mariage nañ ko continuer am ci fulla ak fayda bañ a déglu kenn góorgóorlu te xam ni sëy tamit neexul am na y o des hauts et lay am que muy ku dul célébrité ci am nañ góorgóorlu yàlla lafal leen ci yat musal leen seytaane may leen njaboot gu barkeel loolu leen ñaanal. ok célébrité euh, kii saison 3 bi fan la toll Pod moo ngi ci ak waa Marodi waaw. est-ce que Kati dina la accepter ci saison 3 bi. waaw <laughs> ah, nañ xool rek nañ xool rek waaw en tout cas li ci kanam daal rawu li gët quoi. li ci kanam daal mel ne booy joué dafay euh, da indi li nga xamante ne moom moo di humour mais ci sa boobu da nga ciy lancé waale ay message idées yooyu naka la lay dikkee. waaw parce que bu ñu ay nit yoo xamante tamit ay mag ñoo ñu yar tamit ay mag ñoo ñu encadré tamit ñi ñu encadré tamit xam réalité réew mi ko soufflé ku ci mel ne rek bu la dix personnes di suivre à chaque fois looy def war fexe di leen lancer exemple yoo xamante ni tey ji ñoom dinañ ci mën a référé pour mën a defar lu bari bari bari ci situation parce que bu ñu dee déglu à chaque fois ñun fu ñu diriger public bi rek am nañ mille sacs pour bi jëmee noonu kon mieux vaut ñu diriger leen ci yoon bu baax bi que ñu leen diriger ci beneen côté bi loolu rek ci jublu ah mhm. ngay lance en tant que porteur de voix ñu gis ne violence bi dafa bari nga dëkk jàmm gën euh, te ku leen xam-xam ne euh, ci banlieue bi ngeen dëkk des ñu di leen dégg ci yoo xamante sax amaana jàmm gën laalewu ci mais bu ñu waxee rek ñu ne jàmm gën jàmm gën kon donc ban message ngay lancé parce que ci élection locale la jëm. en tant que porteur de voix lan ngay match yi sax gars dañuy def violence lamb la même chose et autres te ku ne politique ne violence kon donc ban message ngay lancé ci loolu non mën naa ne yi ma posé yëpp bii moo ma gën a neex quoi parce que tamit dama ci am occasion pour mën ci wax parce que jàmm gën à chaque fois dañuy dégg yenn yi yu ci mel ni ñun jàmm gën weex dunk dañoo weex xam na ni man jàmm gën heure bu neex laa fay dox heure bu ma neex laa fay wax gisuma fa lu metti gisuma fa lu dafa am loo xamante ne nag réalité sénégalais am sénégalais yoo xamante ne bëgguñu fu mobilisation am que muy Diamaguène que muy Pikine que ak fu mu mënti fu mu am rek ay nit ñoo fay daje ku nekk day indi jikkoom dañ koy gis ci football dañ koy gis si basket dañ koy gis ci làmb dañ koy gis fu du du banlieue nit la nit moo mel noonu am ñoo xamante ne bu mbooloo amee rek dañ ciy raxaal li gaay naan ñiy gàmmu ak ñiy ras dem bokkun euh, chaque fois bu mbooloo ame day am ñu jox ay profiteurs la ñuy doon dañ ciy dugg boole ci ci bokkul banlieue ay nit loo yoo xamante ne nit ñu am valeur nit ñu xam lu ñu bëgg ay nit ñu am jom nit ñu bëgg liggéey nit ñu bàyyi fële lu metti ñëw fii pour régler ko régler situation mu gën a gaawee jàmm jàmm a gën ak banlieue lépp looloo fa am góorgóor moo fa am ñafe ay xale yu am jom xale yu nangoo liggéey mais ñii yàq ñu ngi yàq te ñi baax moo tax kenn respecté tul waaw ñi bon yàq nañ ñi baax daal loolu lañ mën a wax. Mhm. ok lan ngay wax sa fans si lay bëggee à travers Feeling Dakar. waaw di baax di leen wax nañ yokk ñaani rek le travail kon nii le meilleur reste à venir incha allah. ok maa ngi nii si jàmm ju bari. namm naa la ah? waaw non mbër mi champion la de. non champion moo la gën a nekk champion. ndax yow da ngaa dem sama ñu daal la bigi jël relève bi. maa ko ngemb bés boobu gisoo ni ma taxee ci combat bi waaw gis nga. tey ban yëg-yëg nga am bi nga ñëwee ci bésu Fatel bi seen sœur. waa tey kontaan rek parce que bés bi sunu bës la ku ne xam ne niñ mel ak Fatel ñoo bokk liggéey bi bokk lépp waaw bés bi moom sunu bés la kon buñ ñëwee dañoo war a ñëw buñ ñëw dañoo war a ñëw. waaw. ok yan kàddu nga koy dénk en tant que moom jigéen nekk dugg ci li nga xamante ne moom moo di néegu sëy yan euh, doxalin la war a doxalee pour nga xamante ne dina mën a toppatoo jëkkëram boole ko ak li nga xamante ne moom moo di métier bi parce que li ngeen di def nekkul métier bu yomb parce que des fois euh, da di ah, occupé de trop ba xamante ne li ngeen di nekk ak seen waa kër yi sax doo leen ko nekk ak yéen ñi nga xamante ne yéen yéenay nekk ci seen biir. waaw dëgg la tey ku na ne Virginie mooy suñu deuxième parce que toll nañ moment boo xamante ne nii tey li ñuy nekk ak waa Virginie moo ëpp nekk suñu waa kër dañ koy sante yàlla tamit waaw mariage moom néegu sëy bi moom mënu ma cee joxe conseil parce que célibataire laa taxaguma mais ñaan rek lañ leen di jox mooy lépp lu nit namm ji sëy rek ak lu nit di séntu ci lu baax ci jëkkër ak jabar rek ñu leen koy ñaanal yàlla defal leen lu gën a kawe seen njot ci kàttanu yàlla waaw may leen jabar gu barkeel nag waaw. tu waaw maa ngi waaw maa ngi si waaw jigéen non maa ngi si maa benn rek baax. benn wóor na est-ce nga ñëw wax turam. <laughs> non baax na denc ko. ah jubóo. damay bañ gars yi waaxuma baax denc ko. <laughs> non benn laa baax na denc ko rek. ok lan ngay tàggatoo euh, ñi nga xam ne dañ lay bëggee à travers Feeling Dakar parce que liggéey bi macha allah dafa nice. waaw li ñuy tàggatoo di. kontaan ci sunuy fan si saa su ne rek di kontaan ci ñu ñuy béggee saa su ne xam nit ki la bëgg gis la nit ki la gis bëgg la te defaloo ko dara waxaloo ko dara ku ne xam na ne yombul mais doy na sant yàlla nag ñu leen di wax ne ñoo leen gën a bëgg waaw saa ne sunu xel ak sunu xol yi a ngi si ñoom waaw yàlla baax na nag li ci des nañ ko teg ci loxo yàlla. yaa ngi Feeling Dakar